asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant si li ngeen di déglu seen podcast yeewu tey dañuy ñëw xool histoire bitcoin de façon vraiment très rapide entre buñ ko commencé générer en 2009 2010 ba jusqu'en 2020 dañuy xool euh, fait majeur yi nga xam ni am na fi nga xam ni ça a impacté sur le prix mais aussi yeneen fait majeur yi tourné autour des exchanges de yenn créateurs de business yeeg et cetera. information yi yëpp yëpp ñu ngi ko jëlee ci benn vidéo bu tuddu a brief history of bitcoin in five minutes ci benn page YouTube bu tudd data is yummy donc vidéo boobu lañ jël ñu def ci suñu voix en wolof bi pour mu leen expliquer rapidement euh, faits majeurs yi ak chiffres yi ñuy wane donc nañ ci dem. on sait que premier bitcoin ñu ngi leen miné entre 2008 et 2009. mais en 2010 benn waaye bu ñuy wax Laszlo moom dafa d'accord fay kenn 10 000 bitcoin pour mën a am ñaari pizza si lañ commencé jox ay valeur bitcoin benn prix quoi. si même période bi benn waaye bu ñuy woowee Marc Karpeles c'est un ci la créé benn si premier exchange bitcoin yi nga xam ne foofu la nit yi doon dem di jënd ak jaay bitcoin et comme ni ngeen ko gisee si image bi benn instant Mongox mooy exchange bi. c'était l'équivalent de 70% de, de transactions Bitcoin yëpp existé woon à l'époque et juste après en 2011 c'est le benn Bitcoin égal a benn dollar période boobu lañ gis Bitcoin di jóge un dollar ba ay 30 pour après wàccaat ba ay 8 dollars donc prix bi déjà commencé na instable nit yi dañuy jënd ak jaay lu bëri en fonction de ay nouvelles yi ñuy dégg aussi en 2011 si lañ commencé gis premier lu ñu woowee altcoin yi commencé génn mooy yeneen crypto monnaie yi nga xam ni ils essayaient à l'époque de copier Bitcoin aussi en 2012 c'est la yenn compagnie yi yenn entreprise yi commencé di accepter Bitcoin comme paiement donc Bitcoin mi ngi commencé dugg si waxtaanu nit yi entreprise yu bëri ñu ngi commencé accepter ñu bëri tam ñu ngi ciy gis benn système bu fiable et qui a de l'avenir notamment pour lutter contre inflation bi juste période boobu nga xam ni on est après la crise des subprimes en si ci lañu woowee halvening ci la am halvening sa arrive tous les quatre ans si la ñuy diviser par deux bitcoin yi nga xam ne moom la ñuy rémunérer mineurs yi loolu tamit c'est un événement majeur avril 2013 si la bitcoin defee benn crash bu graaw mu atteindre cent dollars si la wàcc ba ay cent et quelques dollars kon doom boobu tamit sa a été un événement majeur de cette histoire la du bitcoin parce que ñu si bëri dañu doon profiter pour wax ni bitcoin dee na mais lu si graaw mooy dafa jóge 100 dollars dem direct 1000 et quelques dollars. donc ñu si bëri <laughs> noppi nañ en 2014 Mon Gox bi ñu doon wax sànq dafa jékki-jékki rek tëj donc les beaucoup de gens se sont retrouvés sans leur bitcoin donc on a plus de huit cent cinquante mille bitcoin yoo xam ni dañoo réer comme ça dans la nature wala boog dañ leen bloqué te histoire boobu mu ngi ba léegi en cours ba léegi nit yi ñu ngi daw ci gannaaw seeni bitcoin et c'était en 2014. en 2014 tamit si la Microsoft commencé di accepter ay paiement bitcoin loolu tamit te un événement majeur xam nañ Microsoft fu mu toll si nit yi ci këru nit yi et aussi en 2015 si la événement bu important am au niveau du dark web dafa amoon foofu benn marché bu tuddoon Silk Road ki nga xam ni Ross Ulbricht moom moo ko doon moo ko créé woon moo ko doon diriger dañ ko arrêté condamné ko à euh, à la prison à vie ndaxte apparemment il permettait ay vente de drogue ay et cetera mais bon ñëpp xamoon nañ ni c'était plus un message pour ñuy utiliser bitcoin aussi si lañ commencé gis en 2016 gab yi yenn gab yi spécialisé di jaay bitcoin en 2016 si le deuxième halvening bi am am donc la rémunération pour mineurs yi est passée de 25 bitcoin à 12,5 bitcoin par bloc yu ñu trouvé ensuite dinañ gis ni chaque quatre ans euh, rémunération boobu noonu day wàññeeku day divisé wu par deux saa aussi c'est un bon système pour euh, pouvoir euh, influer su le prix mais aussi pour pouvoir incentiviser comme ni ñu koy waxee mineur yi donc prix bi tamit à l'époque si la jóge ba ay 2000 dem ba ay 8000 10000 12000 euros en 2017 aussi régulateur japonais bi si la accepté exchange yu bëri ñu créé wu donc de plus en plus de banques aussi si lañ commencé dugg ne dañuy investir sur bitcoin wala boog dañ koy proposer seeni clients yi donc ñu ngi gis ni ba euh, institutions financières yi mais aussi nit yi ñu ngi accepter de plus en plus bitcoin en 2017 si lañ gis tamit bitcoin dem ba 19000 euros et en 2018 si la amee lu ñu woowee la hash war et si la bitcoin splitté en trois euh, am BCH ak BSV mais au final instant yi soo leen demee xool cryptomonnaie yooyu presque dee nañ et loolu moo indi tamit une des premières mises à jour euh, majeures de bitcoin bu ñuy woowee SegWit 2018 euh, 2017 donc loolu aussi c' était un événement majeur ci histoire du bitcoin bi en août 2019 si lañ commencé di dégg notamment en Nouvelle-Zélande ay mesures euh, du régulateur pour pouvoir taxer les utilisateurs ou les investisseurs de bitcoin Après, le reste, c'est de l'histoire, comme on dit.